ban jàngat nga ci am moom mu def promesse euh, ne bu faloo euh, bu bu Ousmane Sonko euh, jàllee ci parrainage yi maanaam bu éligible incha allah moom dina retiré wu bàyyi ko mu daal di dem yow loolu ban jàngal nga ci am. waaw xam nga xam nga Habib Sy ñu bari d'accord ñu ci choix wu Sonko ci tànn ko. Mm-hmm. et jox ko possibilité ñenn ñi di wax ne sax ne jox nañu ko possibilité moom. bu ñu bañ bañal Khalifa Ababacar Sall mais Habib Sy nañu ko jàppe itam ne c'est un candidat du système mais faut savoir que bon Habib Sy euh, c'est quelqu'un boo xamante ne yàgg na ci wàllum politique am na expérience politique bu bu màgg yàgg na ci système ak attelage gouvernemental beneen bi ci topp mooy man dama jàpp ne euh, bu fekkente ne Ousmane Sonko da ko jiital ci mbir yi il a des raisons yi nga xamante ne mhm. assez suffisante xëy na lu war a mën a tax tànneef bi di porter sur foofu comme je l'ai dit xam nga euh, Ousmane mooy nit koo xamante ne ci wàllum politique en réalité doo xam exactement fan la jëm c'est quelqu'un qui mène un mhm. jeu très intelligent euh, Habib Sy aussi nit la koo xamante ne par am na chemin bu mu parcourir ak Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi bi nga xamante ne la plupart d'entre eux wax dëgg yàlla ci ñu ci bari ci ñoom ci Ousmane Sonko la féete donc moom la ñuy àndal ci lépp en tout cas xeex bu bari bu nu ko dee xeex it dañ ko dee xeex pour que moom mu mën a retrouver liberté am bu fekkente ne jiital kenn koo xamante ne dafa bokk ci biir Pastef man naa indi euh, ay galgal yuy war a mën a tere par exemple moom mu jàll est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à ce que kon xëy na ñu changer angle de de traitement bi changer fusil de guerre bi comme ni ñu koy waxee génnee koo xamante ne xëy na amaana doo ko xalaat wala Euh, xëy na sax amaana mën na bañ def l'unanimité parfois c'est une bonne politique également une bonne stratégie boo xamante ne dañu koy dañu koy définir ci ci mbir mi ni mel c'est vrai que nag tout le monde n'est pas encore une fois d'accord sur le choix de Habib Sy mais Habib Euh, quelle que soit la situation bi Ousmane Sonko nekkee ci ay jafe-jafe ba tey musu ko bàyyi musu ko il a mm -hmm. toujours été de son côté maintenant la vraie question est est-ce que Ousmane ni mu wóolu ñëpp ce sont des personnes réellement de confiance. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on arrivera à parler de pouvoir, ils vont changer la donne par rapport ak li nga nekk li nekk di xew. Est-ce mhm. qu'aujourd'hui, Uhum. Mm-hmm. Uhum. Mm-hmm. Uhum. Mm-hmm. Uhum. lu ne ci wàllum état ak gouvernement ak leneen lu ci topp ñeneen ñi jàpp ni am na foo xamante ne bu fa tolloo est-ce que mën na apporter quelque chose à Ousmane Sonko mais bu ñu fàtte de ce même Habib Sylla dëgg-dëgg moom moo jiite woon Yewwi Askan Wi ci ay jamono moom la ñu defoon seen mag mhm. def ko seen kilifa jiital ko ci léppam euh, pour man nit la koo xamante ne xëy na Ousmane wóolu na ko li tax mu tànn ko jiital ko il il doit avoir ses raisons et l'avenir nous édifiera sur bi nga xamante ne moom moo dox ci diggante Habib ak Ousmane d'accord euh, ba tey ñu si présidentielle yu 2024 euh, tey ñi ñëw ci euh, comme pouvoir bi ñoom ñi nga xamante ne actuellement li ñu prôné mooy continuité fas yéene gunge kii di lu Ba pour mu daal di yeggali li nga xam ne moom la fi Macky Sall sam actuellement ñu gis kii di Aïssata Tall Sall mouvement bi nga xam ne moom la amoon di Oser l'avenir daal di nekk ab parti politique ne da leen di gunge tey. est-ce que euh, tey Amadou Ba aussi commencé affirmer wu ci ay sorties wala di fësal boppam à travers ay ay tournées yi nga xam ne actuellement mu ngi koy def ci ci ci ci dëkk bi et mën nañu ko mën nañu wax sax mu ngi koy def sans le président Macky Sall daanaka di dëggal boppam comme li nit ñi doon xaar ci moom finalement ndax continuité bi nga xamante ne moom moom lay woote wala moom la bëgg a def fi mu toll nii ndax commencé wul di prendre forme. <laughs> en tout cas xaw ma mu ngi prendre forme xaw ma prendre forme de waaye les les choses on dirait que marchent à leur avantage. après ci eux qui détiennent le pouvoir tu vois un peu. Mhm. Euh, Amadou Amadou Ba moom gëm naa ne personnalité ni mu mel moom ni ko yàlla bindee ak li yàlla def ci moom ah ndam xanaa kon ñu ñaan yàlla mu soppeeku waaye du yomb rek Amadou c'est quelqu'un boo xam ne euh, gëw nga ne am na. benn tu politique bi nga xamante ne moom la ñu moom la ñu soxla ci moom. il nous a mhm. habitués à être quelqu'un tu vois de très euh, je ne dirais même pas serein mais calme et zen. boobu attitude boobu mhm. boobu jikko la ñu xam ci moom. est-ce que ce Amadou Bala peut se transformer en autre chose moo continuité moom Nabou Cor. ñoom nañu mhm. comprendre une bonne fois pour toutes les Sénégalais bëgguñu continuité bëgguñu ko li ñu bëgg mooy rupture mooy changement. li ñu bëgg mooy mm-hmm. soppeeku li ñu bëgg mooy ay inno innovation li ñu bëgg mooy ay projet yoo xamante ne vraiment mm-hmm. mën na conduire le Sénégal à un avenir meilleur et pour moi vraiment le terme continuité n'est pas l'expression politique favorable en ce moment bi nga xamante ne moo leen di permettre ñuy def yenn yi après nag mm-hmm. xam nga nag wax dëgg yàlla boo nekkee ci nguur am nga doole am nga possibilité def xëy na loo xamante ne amaana keneen amul possibilité def ko euh, mais bu ñu fàtte ne tànneef gu mujj gi li tax enjeu élection yi important mooy ne tànneefu askanu Sénégal la ci loolu j'en profite Nabou pour wax sénégalais yi j'espère que ñu ngi lijjanti li nga xamante ne moom mooy seen carte d'identité nga xam ne seen carte électeur yi ca la bokk ñu ngi ciy taxaw taxawaay bi war nabu parce que gis nga nag luy jot jot na am na loo xamante ne boo ko bëggee xeex euh, pour man da ngay nekk dans les conditions yi war a mën a tax buñ ne pirip dip départ bi tàmbali na kenn bañ a des ci ginnaaw ñu naan faux départ am na fii li nga xam ne mooy tax Sénégal may mën changé changer du dara mooy nit ñi gëm seen bopp xam ne carte bi mhm. mooy xeexukaay bu mag bi et que moom moo mhm. mën a déterminer euh, changement bi nga xamante ne moom la ñu bëgg amal ci réew mi que tous les Sénégalais ay retirer leur carte d'électeur téye ko gànnaayoo ko ndax février soreetul dara incha allahu rabbi léegi ñu yegg ci te bu ñu ci yeggee bu boobaa dinañu xam nag dëgg-dëgg ku am doole ak ku amul doole ku wi bëgg ak ku wi bëggul te loolu laaj na surveillance gu mat laaj na full ak fayda gu mat laaj na taxawaay bu mat gaw ma ne continuité mooy tax loolu soppeeku au contraire man je pense que tant que ñu ngi euh, ñoom accès seen communication ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu continuité continuité wu lan en réalité continuité wu souffrance su Sénégalais yi continuité wu lan continuité li ñu seen ci géopolitique bi mu fiy am te ñaaw loolu te ñëpp di ko naqarlu continuité wu lan continuité wu parce que tey ji da nga tabax ay tali def nga ay infrastructure ñu ne la wuyu bravo waaye yow ñun ñi tukki tuuti ñëw xam nañu ne wax dëgg yàlla ne am na naam loo xam ne ñu ngi koy def waaye li ñu dese ak bari ci ay wàllu progrès continuité wu lan askan wi nga xamante ñu lekkuñu naanuñu sonn nañu dee nañu lottu nañu kuran gi leen di bëgg rey ndox ngi leen di bëgg rey ak jafe-jafe yi ñuy dundal continuité wu lan immigration clandestine manque d'emploi des jeunes non en réalité on ne veut pas de continuité de ce que cet état nous propose depuis un temps pour man ci loolu la ñu nekk boobu ba tey te jot na nag wax dëgg yàlla ku nekk ak yow fukki at ñaar bu la neexee ne ko doyal naa ci sëy bi te kenn mënu laa forcer nga toog ci sëy boo xamante ne ko kenn ku ci nekk yokku yokkute nga bëgg ndam nga bëgg avancement nga bëgg te man li ma ci gën a naqari mooy bu doon côté social bi mooy problème bi sax ñu ne waaw mais dafa bëri ci ay problème yoo xamante ne sénégalais yi dañ koy jànkoonteel au quotidien et malheureusement la politique ne règle pas le problème final Amadou Ba a Euh, mu jéem a fexe concourir le cœur des Sénégalais pour man il fallait le faire dans l'action gouvernementale ci liggéey bi nga xamante ne am na ko en tant que casquette premier ministre boobu jiite ab gouvernement tey doxal li nga xamante ne moom la ko président Sall santaane bu doonte lu ñuy liggéey xolu Sénégalais yi sedd nañu ci bu boobaa moom il n'aura même pas besoin de faire beaucoup d'efforts askan wi ñoo ko naan jërëjëf jokkoon jàll ci li nga xamante ne yéen ñu koy defal pour man nag bu ñu yeggee ci géewum politique am na foo xamante ne nag euh, bon la personnalité politique sort euh, jëmm ji itam dafay dafay génn euh, ci li nga xamante ne moom mooy xëy na peut-être le feeling les gens ils jugent sur ay éléments yoo xamante ne dañuy jàpp ne c'est des éléments basiques mais hyper importants mais ñoom seen atte ñoom nañu jàpp ne nekkul ci slogan nekkul ci phrase nekkul ci wax dëgg yàlla costume bu rafet li mu nekk mooy ci li ñuy liggéeyal sénégalais yi te wax dëgg yàlla defuñu fi benn at defuñu fi ñaari at def nañ fi fukki at ak ñaar doy na sëkk nag yéen ñu mën a peser ci balance ndax li ñuy liggéey amal na njëriñ sénégalais yi wala amalu njëriñ sénégalais yi ajaratu na bu Allô excusez-moi je pense euh, son bi moo dawoon euh, ajaratu ba tey ñu des ci les candidats munis euh, ñi nga xam ni actuellement bi tey si c'est bon je pense que euh, Mami est partie bu fekke mën naa ko jot mu duggaat ci ligne bi bàlle ñu il faut nous excuser ci interruption yi nga xam ne ngi am c'est les aléas du direct et on fait avec les moyens du bord ndax actuellement on est en déplacement ñu ngi euh, fii ci Qatar à Doha euh, xam naa ni dégg-dégg bi léeg-léeg bu yem ba ñu ngi ci jégalu bu baax xam naa au fur et à mesure ñuy def émission tous les jours partir de 7 heures euh, seen émission fajaru di ci ànd ak yéen ngeen ci ànd ak ajaratu ni Samb man ak dara au Sénégal actuellement euh, di ngeen euh, am peut-être meilleure qualité de vidéo et de son am seen émission ni mu gën a yembee ak ni ngeen ko gën bëggee si Mamy est là revenir wala mu génn daal di ñëwaat. mais mais ton écran ton image est figée ajaratu ton image est figée. voilà donc yow da ngay mën nga couper sa vidéo nga talaat ko wala nga génn duggaat si c'est possible allo c'est toujours le même résultat euh, est-ce que doo doo doo doo ko fay nga talaat ko voilà da ngay génn da ngay génn ñëwaan je pense c'est mieux voilà d'accord d'accord si c'est si c'est bon euh, bi tey ñu ñu daal di dem le temps ajaratu mami daal di dugg rek àndaat ak ñun s'il vous plaît il faut liker live aussi ngeen euh, partager ko comme ça ñi nga xamante ne euh, duñu jot notification YouTube daal di mën a ànd ak ñun waaye ñu xamee ko noonu rek à chaque fois voilà voilà léeg-léeg interruption dina am waaye ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax. te dinañu def suñu kéem kattan ba ngeen am euh, euh, émission bi ci qualité bi ngeen ko bëggee wala bi ngeen ko daan amee bi ñuy nekk Sénégal euh, et dinañ ci liggéey bu baax a baax a baax a baax jàpp leen ne lii rek test la pour un début te mënuñu toog lu yàgg te duñu wax ak yéen bi tey si c'est bon ñu dem si c'est bon pour ma mi ñu dem. d'accord super c'est bon alors ñu des ba tey ci euh, présidentielle bi daal di ñëw ci candidats yi nga xam ni on peut les appeler les candidats mui euh, ñu ñu ñëw ci suñu dëkkandoo bi ajaratu euh, suñu dëkkandoo bi nga xamante ne moo nekk fii tout près di Karim gis nañ ko fan yi ñu génn daanaka bi at bi jeex Euh, mu daal def benn déclaration dans une euh, allocution filmée euh, loolu nag jaaxal ñu bëri parce que ñu bëri dañ doon xaar ginnaaw bi nga xam ne jëlee nañ ko fii indi ko fii ci Doha ba tey ay ay message la doon mhm. jàllale wala ay text yoo xamante ne daanaka moo koy bind ay déclaration yoo xam ne dañu koy gis ci page Facebook am ak yu ni mel waaye mosuñu ko dégg mu wax bi paa mu ñëw nag ci benn allocution filmée pourquoi Karim nopp ba tey et aussi pourquoi mu jaar ci loolu te war a mën a génn euh, waxtaan ak sénégalais yi wala waxtaan ak journalistes yi ñu posé ay questions mu tontu euh, euh, bu fekkee ni tey fii ak élection présidentielle yi daanaka li ci des bareetul choix wu Karim bi lan moo koy wundu wala lan moo koy justifier. waaw xam nga Karim Wade man la vraie question mooy est-ce que Karim bëgg na bëgg na bokk ci élection.